وحلل عقدة من لساني يفه قولي بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نيو مبولم كي نتي كيرغي دي زياره سونو بريزيدان دي زياره سونو سيرين دي زياره بريزيدانت دي زياره مبولم استاذ سي نتي بير ا ني ام يينه دلسوات تي بروغرام بي ني امال ان شاء الله حديث بالله ان تانك ابو هريره ما نيوك نتري جلغتي النبي صلى الله عليه وسلم من عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى الى رسول صلى الله عليه وسلم ني جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتي قال امك qaala summa man qaala summa ummuk qaala summa man qaala summa ummuk qaala summa man qaala summa abuk rawaahu muslim mani an abi hurayrata jële ci abi hurayra radiyallahu anhu yàlla ko yàlla gërëm xaala moom wax na abu hurayra mooy nettali mu ni jaa a dikkal na rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ni jaa dikkal na rajulun benn waay ila rasulullahi salallahu alayhi wa sallam abu hurayra mu ñu nettali mu ni benn bis daal benn waay dikk na ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam waa ji bi mu dikkee ci yonent bi lan la ko wax fa xaala mu wax waa ji mooy wax mu ni mooy laaj yonent bi mu ni ko man a xaqu naasa bi xusni sahabati maanaam kan mooy gën am xaq ci ma topp ko yow yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw yàlla mu ni ko kan mooy gën a am xàq ci man ci rafetal wala ma topp ko jëmal ci ci moom waa ji mooy laaj loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan tontu mbokk yi bi waa ji laajee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa ni ci gën a am àq ci yow nga topp ko wala nga rafetal jëm ci moom ginnaaw yàlla mooy sa yaay su ma xaala xaala bu ko ni umm ko sa yaay sa yaay daal mooy ki nga xamante ni si ginnaaw bi yàlla suñu borom booyee yonent bi sallallahu alayhi wa ko waaji laajee loon ni ko kan mooy ëpp àq ci man pour ma rafetal wala may ànd ak moom jëm ci ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko waa ji laajee loolu kan la ko wax di ko ginnaaw yàlla sa yaay yaay daal mooy ki nga xamante ni si mooy ki ëpp àq ci yow nga ànd ak moom wala ngay rafetal jëm ci moom. xaala waa ji delluwaat laajaat ko yonent bi ni ko ak kan suma xaala suma man xaala mu wax ko ni <clears throat> suma ummuk yonent bi delluwaat ni ko sa yaay waa ji delluwaat laajaat yonent bi ni ko xaala mu ne xaala mu wax ni suma man waa ji ni ko ak kan xaala yonent bi ni ko suma ummuka topp sa waajur bu jigéen ba yi ñetti yoon waa ji delloo laajaat ka ndigal summa xaalam wax nga ne summa man topp ak kan yonent bi sallallahu summa abuk muy sa waajur bu góor muy sa pap xaris boobu rawaaxu solo na ko muslim imam muslim moo ko solo kon mbokk yi abu hurayra moo ñu nett na mu ni bis benn waaye dikk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waji ji bi mu ci yonente bi daf ko laaj ni kan ndax yow yonente bi sallallahu alaihi wasallam kan moy ki nga xamante mo ëpp ak ci man ma rafetal di and ak mom yonente bi sallallahu alaihi wasallam ni ko so waajur bu jigen moy ki nga xamante ni si mooy ëpp ak ci yow ginaaw yalla ngay rafetal wala ngay and ak moom waa de laajaat ke ko laajaat ko posewaat ko même question yonente bi sallallahu alaihi wasallam ni ko sa yaay moy so waajur bu jigen waji ji ko ba muy yoon mon ko ne sa yaay moy ki nga xamanteni ci si ëpp ak ci yow pour ngay anda wala ngay rafetal jëm ci mom ginaaw yalla bi ko waji salam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam delu ko wax ni ko sa pap moy ki nga xamanteni ci si yalla ak sa wajur bu jigéen bi nu wooyee ki ëpp ak ci yow sa wajur bu moy ki nga xamanteni ci si ki ëpp ak ci yow nga rafetal wala nga anda ak mom hadith bobu ni rawahu solo nako muslim imam muslim moy ki ko solo ah kon bokay li ñu mën jàng ci hadith bi mën naa ne bari na yonente bi sallallahu alayhi wasallam di jàngal manam dayo ak way bi nga xamanteni ni si yi am nan ka surtout bu jigen ba te lool nak alquran moy ki nga xamanteni ni si moo nu ko jëkk nettali jëkk nu koo jàngal comme ni ka ay bi ni khada rabbuka allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana sadaqallahu alazim ila ahir ayah mu ni yàlla subhanahu wa taala mu ni yàlla suñu borom attena dogal na ci ñuy jaamu moom rek bu dee jaamu moom rek moom moo ko yeyoo waaye nag bu dee rafetal na ngay rafetal jëm ci say ñaari waajur rafetal googu nag jëm ci si ñaari waajur ki nga xamante ni moo ci ëpp doole mooy moom la ni yonente bi salallahu alei sallam di jàngal fii ki ci ëpp doole mooy waajur bu jigéen moom mooy nekk troisième position bi nga xamanteni ni si waa laaj nak bi mu ko laajee yonent bi nee ko sa yaay ba muy ñetti yoon soko andi ni ga nak sa wajur bu goor kon ñu xam dayo ak waccu way bi nga xamanteni ni si waajur yi am nañ ko surtout bu jigen ba ah ñu xamanteni ni si ni moy ñëw xam kenn amul seen fay waaw surtout wajur yu jigen wax dëgg yàlla képp ko xamanteni ni si yàlla wërsëganal naka ngay dund ak say wajur yu jigen say wajur mo xam bu gor wala bu jigen bu ñi nga xamanteni si ni yalla def na mo xam seen bu defa wala bu gor ba yalla na leen yàlla yërëm ñu delu leen di leen ñaanalat waye kep xam xamante ni si yàlla la ak say wajur nga nek ak ñom lo man ci rafetal nang ko def lo man ci baaxal wala def lo xamanteni si ni loy seral seen xol la lo ci daan def ben rek nang ko gëna def ko day tam wajur du morom ñom ñi nga xamanteni ci si comme niko ko olof njaay di waxe mu ni wajur xeer la ak nen rek bu xeer dalé si nen nenay toj bu nen dalé ci xeer nen moy toj kon bok ah lo xamanteni ci si lii daal lo ci man rek ci rafetal ko moy ñun ñi wax ak yeen ñi deglu lu ci way man ci gor ak def ko rafetal rek nang ko def te xamni wajur waajur du morom yàlla na yàlla defal dégg bu ànd ak topp li nga xamante ni si lu ci leer la si mbaaxu suñu borom la lu ci lëndëm su ñun ñi la ak suñu ñàkk xam-xam in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh